bokk na ci li ma gën a neex. d'accord kon léegi professeur ndax mën nañu jotaay. ba la neexee. bisimilah <laughs> ñu dooree ko nag ak. Euh, mhm. datu élection bi. Mhm. yéen nag candidat yi moom ngeen doon sàkku. Mhm. finalement date bi retenir nañ ko pour 24 mars ndax bokk nga ci candidat yu mu bett wala yow pare nga. Euh, Ndeye Ndeye Fatou. tey lan tey dimanche. waaw tey dimanche. suba. man pare naa ko dem élection. Ah? soxla woo campagne. xamul tax soxla naa ko. waaye du sama yitte jamono ji xam nga dañoo xeex pour démocratie Sénégal ñëwaat. Mhm. Sénégal moo ñu ëpp ñun ñëpp. ku ci nekk ci ñun da war a bàyyi dara tere ndax tay ndax ndax dara euh, ku ci nekk ci Sénégal bàyyi nga dara ni yow ak sa morom waa société civile bàyyi nañu pour xeex suñu côté ñu lay candidat les folies yi nga dégg nañ amoon nañu lu leen metti seen i parrainage ak ñii kale ñi ak universitaires yi ak société civile ñëpp jàpp ànd ak ñun te ñoom li ñuy wut ñoom wutuñu ko ñoom ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp pour liggéeyak ak ñun xeex ñun pour ñu def élection bi ci yoon ñun waruñoo gën gën ñoo gën a gore moo tax li ñu doon xeex mooy ñu respecter la démocratie le calendrier électoral pour que président bi avant le 2 mu ñu fexe mu dem ci jàmm nit ki war a falu falu donc loolu amul prix oui normalement war nga am campagne déroulée parce que boo sañoon mm-hmm. Sénégal bu nekk nga dem ci moom jox ko cëram waxtaan ak moom wax mu dégg ngeen waxtaan loolu la ñëpp soxla loolu la ñuy ñaan. Hmm. loolu lañ bëgg loolu moo doon rêve bu ñëpp man de loolu mooy sama rêve pendant sept ans bi mu wër Sénégal. ko mën a fan ak non mënut a nekk moo tax ma ne la du nekk mënut a nekk. Hmm. mais mais indépendance su Sénégal démocratie sénégalaise pour mu dellu Sénégal delluwaat ci place am. Hmm. Sénégal waat ci raay. jar na sacrifice de tout un chacun moo tax ma ne la bu doon suba baax na parce que tant que loolu moo may permettre Sénégal teguwaat ci raay man bëgg naa arrangé wu ma mais bëgg naa te population bi dañ ciy nangu ànd ak ñoom. mooy li tegaat Sénégal ci raay rek ci temps ci temps bi. moo tax lépp nañ ko ñaan ba yi jaar fi ko war a jaaralee mu tegu ci yoon mhm. surtout que j'ai l'habitude de le dire ku may dégg yaa nga dégg ma ne day faatu. Mhm. yàlla noppi na depuis démb ki muy fal fal na ko bu yàgg mhm. nga campagne. fal la ko nga ñàkk campagne fal la ko. ñun dañuy dox campagne am na ci solo professeur ngir askan wi xam sa projet xam sa programme. xam loo leen naral moom laa xoon sànq moo tax ma ne su ma damay wax ak sénégalais bu nekk. Mhm. mu wax ma dégg ñu waxtaan mu laaj ma ma ko. ci lu bari ma jox ko ba mu doyal ci waxtaan ci information. Mhm. xamal ko lu bari mu laaj ma ma tontu loolu la ñëpp soxla campagne bu nekkoon sax un an mu gën. parce que nit ki mënu la fal te xamul sa programme. Mhm. nit ki mënu la fal te te moom xoolu ndax arrangé nga ko parce que le ku ci nekk yow ak sa borom la ci benn président la ñuy fal donc loolu mooy gën loolu la ñëpp bëgg mais boo xoolee situation bi nii xeex bi yëpp moo doon nañu ko nañu def élection avant le avant le 2 avril. respecté la la la mais finalement est-ce que duñu jéggi 2 avril bu fekkee ñaari tour ñoo am parce que c'est pas évident que élection bi premier tour ci lay yem. Euh, logiquement xam nga nag il faut être mathématique euh, ñun ay scientifique lañu. Mm-hmm. scientifique moo tax ma ne euh, il faut pas se dire que premier tour rek lay yem. parce que premier tour ça suppose que bu nekkee premier tour am na te nag bu ñu nekkee en tout cas moi je suis un scientifique. Mm-hmm. man gëstukat laa bu fekkee yàlla rek tax may wax ah yàlla mën na lu ne. waaye gëwuma ne nit mën na gagné premier tour Sénégal bi mu tane gëwuma ko yàlla nag moom moo comme je dis nag kenn du jël place parce que yàlla xamul pourquoi te li muy décidé moom nu ko neex la koy defee. am na ay raison mais jàpp naa ne li ñu war a prévoir mooy deuxième tour. Mm-hmm. mais li am solo ba am solo mooy. au moins premier tour dina am avant le avril. pour que parce que boo xoolee combat bi non seulement date bi la woon mais que le processus électoral ñu déroulé ko. Mhm. donc et processus bu xasewu bi mooy candidat yi c' est maintenu vote bi commencé na allah kulli xaal même bu ñu koy romb 2 avril xanaa du dem ba le 15 avril. Mhm. donc à la limite période boobu. transition mën na fi am de façon très simple te du du poser problème parce que bu ñu ko romboon. Mhm. ñëpp xamee nañ ne euh, li euh, euh, juriste yi naan. vide juridique euh, euh, moo moo fi juridique moo fi te xamuñu xamuñu li xew. parce que fin de mandat prévoiruñ ko. prévoiruñ ko suppléance voilà mm. donc ne serait-ce que ñu mën ko teg ci temps bi. temps bi mooy ñu def avant le deux. bu doon le 31 bu doon le 30 lu mu mënti doon mais ñu def ko avant te ñun candidat ak sénégalais encore une fois boo xoolee mais moo tax conseil constitutionnel bi bi mu ne bi bi mu nee 31 bi kilifa gu mag gi mu ne ko d'accord naa parce ñëpp jàmm la ñu wut mooy problème hmm. parce que conseil warutoon jàpp date te loolu ñëpp nangu lañ moom sax dem na ban reconnaître ne warutoon jàpp date waaw mais conseil amul mayuñu ko choix bi hmm. conseil boo xoolee décision bi mu njëkk a génn ñun bi ñu ko bi ñu ko hmm. ne ko waxal li waa ji di def président bi du noonu dafa teggi yoon teg tegal nañ delluwaat ci yoon ci par rapport ak élection bi mu ne der ñenn ñi ñenn ñi nee nañ sax dafa daw responsabilité am foofu te ñu ñenn ñi gisee wuñ ko noonu mooy moom moo waroon jël date mais moom boobu jëlul date nee na kilifa gi fexeel ba avant le 2 nga jël date waaye bu fekkee ne def na loolu. meilleur délai da la ah, waxoon waaw non seulement meilleur délai. ku nekk am ci lecture boppam. waaw meilleur délai et puis nag nga waxtaan ak ñi nga xamee nañoo les autorités compétentes. Mhm. autorités compétentes du man. du nay faatu du keneen mooy ñii jore élection bi mu dégg na waa ji dem euh, président bi nee na day dialogue yi ci pour proposer beneen date ba bu wax la ay le 2 juin waaw non pensé nag day jël responsabilité mooy boo mënta jël date man ma jëlee la date moo tax bi mu ko defee gis nañu résultat bi bu mu jëlee le 31 waa ji le président le 24 mu ne ko d'accord naa ak yow et c'était ça le important mooy naxante. ba dem ba di dépasser prérogative non jàppewuma man da conseil conseil dépasser prérogative am parce que pour man. Euh, non juridiquement conseil warul jël date. waaw d'accord mais moom laa c'est-à-dire mm-hmm. jàmm réew mi ak indépendance. du Sénégal ak démocratie Sénégal delloo ci si fu mu wala kii surtout que nag non seulement les candidats le mais tey bi mu ko waxee les grands peuple ñu bëri d'accord nañ ci li mu wax. ndax dañu ne moom comme ki war a jël parce que nag euh, lu ñu la sant boo ko deful euh, euh, ku amul maam naam ku amul yaay naam maam. donc pour man conseil dafa def loo xam ne tey moo jur moo jur aw résultat bi mooy élection bi am na avant le deux c'est tout ce qu'il faut parce que yow xam ne li xew ci dëkk bi depuis un mois du du justice du justice te conseil mënoon def li gën a yomb mooy ànd ak président bi moo tax pour man le conseil il faut les remercier il faut les saluer. ah doo di nga ci wéet professeur. déedéet du ma ci wéet de. parce que conseil ñu bëri jàpp nañ ne processus bi niñ ko gérer baaxul de. non ñuy def filtrage ci parrainage bi ak yenn dossiers la perfection n'est pas de ce monde. Mhm. lépp lu baax li ñuy def tere ñu ne amul amul erreur ah bëriwul de ba je donne un exemple très simple Sénégal bi ko Côte d'Ivoire di door ci eh, ci Coupe d'Afrique bi. lañ ne dañ amoon nañ pénalti bu njëkk ba jàpp nañ ne bi dafa juum ba tax ñu aj ko lan lañ mujjee di valider nañ match ba. loolu mooy règle du jeu. erreur mënut a ñàkk dans dans dans un jeu lépp looy def. ndey faatu. nit ku juum amul. te lépp looy def sóoraal am na lu fa am problème gàkk-gàkk. mais ci jeu électoral est-ce que du dangereux conseil di am nu muy doxalee ba ay frustration ak ay mer. di man mënu ma ko juger parce que comme li dal ñenn comme spoli yi ak waa PDS. xam nga man comme xaw ma li xew foofu conseil mënu ko évaluer mënu ko juger. Mm-hmm. li ma xam mooy je vais un homme bu jël di recul mooy lu ma xamul du ma ci juger am na ñu wax ne dañ leen dafa am problème au niveau du conseil man fekkewuma xaw ma. li nit ñi wax aussi doo leen ko bañal parce que ñoom jàpp nañ li warul woon demee nii. bref li war a jàpp mooy kurul juum amul bu fekkee juum te am na. ba ci ñaari yoon conseil di def erreur muy ci kan ci nationalité yi avec kaawu madame Wardini ñu demati mu jëlati date ba reveniraat xam ne moom waru ko woon jël muy ñaar yu ñëpp fekkee. moom laal xam nga xam nga erreur boo koy boo doon benn ñaar ñett da ngay gis lu bari. arbitre boobu yow dal na sa xel ba léegi. waaw bu baax. Hmm? waaw ndax xam tax mu dal sama xel. Hmm. li ñu def Sénégal ba tegaat Sénégal ci ci raay. da day faatu loolu léegi erreur bu ñu defoon. Hmm. ma jàpp naa la war dañ leen ko mën a baal. bu fekkee dañ def erreur encore une fois je ne juge pas parce que am na loo xam ne man du ma ci dugg ndax am na lu ma comprendre ci biir. mais li am solo mooy